dikkati naa loxo ci poos de ngi mel ni tulleeg maale ci réew mi tribune yéen kaay ne bi yor ministère des finances la ñu ne nii yéen kaay bi naan man ci dépense budgétaire yi la ñu gis ni nag am na écart goo xam ni maar day taal ay mbóot daal di cay làqu te ma ne la lii ji ñu ko kenn ku dul ministère de finances joogu si sa naan man déglu ma boo dégloo dégg-dëgg cour des comptes ci boppam moo daal di génnee lii gannaaw ba nga xam ne nag génnee woon na caxat-caxatee gu ca fond force covid 19 bi yéen kaay bi naan man wa ci koppar gi mi ngi am diggante diggante 2019 ak 2020 lu tollu ci daanaka benn milliard ci wàllu débit waaye tam téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti milliards bu teg ci wàllu crédit yéenekaay bi naan man koppar googee lañuy laaj fi mu ne fu mu jaar ndax Cour des comptes gis nañu nag écart boobee daal dinay am ci koppar goo xam ne ministère des finance daf ko waroon dugal ci wàllu budget ci réew mi nag na muy doxee waaye écart da caa am ana xaalis bi ndax nag xaalis bi ci boppam juróomi milliards yu teg la ñu ne gis nañ ko ci écart goo xam ni maar day taali moom nag ministère des finances ma ngay lay fayal boppam naan dépense bi dugg na fii génn na fii cof nañ fële daal di fayee fële ronkasee fii daal di def fële cour de comptes ne ko mane la ana xaalis bi laa wax ana xaalis bi libération yéeni kaay mel ni ku naan man Sénégal daañu dëkk ci laaj xaalis sa du dak ndax nag CKSA dañu koo jàpp moom it loxo ci poos muy sàccalalu kaskan wi ci nan xanaa ci autoroute à péage bi nga xam ne dañ leen ko jox naan leen doxalal te fayuñu 2011 jàpp 2020 yéeni kaay bi naan maan société bii di Eiffage nga ne moo doon defar avenir di péage bi amul genn koppar goo xam ne jébbal na ko nguuru Sénégal ARMP ndem si yàlla suñu tuddee ko ARCOP daf ko defoon loxo ci poos ne ko ñetti milliards war nga ko fay nguuru Sénégal ci fanweeri million yoo xam ne at wu yàlla sàkk war nga ko jox nguur gi waaye ba nii France la ñu leen tuumaloon ay tàng ba mu andi woon fi jeexul ci réew mi Sud Quotidien naan man réew mi ay liggéeykatam ña ngay sàkku président Macky Sall yokku salaire yi ña ngay sàkku nag fiscalité yi nga xam ne am ci salaire yi ñu ko waaye tam jafe-jafe nga xam ne ñu ngi ko am ci yenn jamono ji entreprise mu daal di dakk président Macky Sall naan leen déet yokkum salaire kay dëgg-dëgg mënta amati ci réew mi di Le Soleil yéen kaay naan man junni téeméer juróom ñett fukk ak juróomi milliards moom la Sall ngaari lam tooro bur géde ronkas ñaari at yi ci réew mi ngir xeex nag lépp loo xam ne njënd ak njaay la cher ci réew mi président Macky Sall naan leen fi mu ne yokkum salaire moom mënatuñ ko ci réew mi moom kay ab dogal la ñu fas yéen a jël képp koo xam ni gréewati nga dañ naan téppéet sab salaire daal di dagg tribune yéen naan man ñene woon téppéet dafa am diggante Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall mbaa ñi ngi xool ndax nag dafa mel ni réeroo amul de woote ba nga xam ni président makki Sall woote na ko dialogue ci réew mi Khalifa Babacar Sall Karim Meïssa Wade ne ñu saraax ci biir géem bi dem nañu wuy ji nag président Macky Sall le témoin yéen a kaay naan Mimi Touré Ousmane Sonko nee ñu dee moom Mimi Touré ci l'info yéen a kaay ne xanaa Sénégal yéen du ngeen xool dialogue bii dil la boo xam ni diggante président Macky Sall ak Abdoulaye Wade la te dialogue bi nag waa parti démocratique sénégalais dun ci n laay caayalan ci ñoom ni ko Sall ngaari initié lan ca bokkee tey jii leen di xamal ne deal la te nag pour deal bi mën a mat faaw président Macky Sall ak parti démocratique sénégalais bokk benn siis daal di ñuy toog Ousmane Sonko ji vox populi naan dee dialogue bi kay ngir écarter Ousmane Sonko la Mame Mbaye Niang ci critique yéen kon xaar ma ma ci yow Sonko mimi ci l'info yéen kaay naan fii baax kaay leen ma xamal leen ni PDS moom miik lay def ci troisième mandat bi ndax nag bu dee fukki baaraam la yore juróom-ñeent yi moom jébbal na ko Sall ne ko am jëlal bi daal la jox opposition bi fi mu ne PDS sursoir naan daal daal dinay caxat yeewi askan wi Khalifa Babacar salla nga naan damay dem Ousmane Sonko naan mukk Mimi Touré naan ku dem yàqu ndax di la Walf Quotidien naan maan loo ci manti déggit Sall ngaari lam toro daal dialogue bii moom la teg nag di ko meebee gars yi ngir ñu new ndànk-ndànk daal di koy wuy si Le Quotidien Le Quotidien naan xalifa de dana dem bés bi Le Jour naan loo ci manti déggit Sall la mu bëggoon mbaa amu ko mbaa yeewi askan wi nag wul ne leket wu xaawee ci kaw daal di mabb ci suuf daal di def fukki morsoog juróom ñaar ndax Khalifa Babacar Sall moom ma nga naan taw ak naa moom par force day am ci réew mi Ousmane Sonko naan liquide maa ko tax a jóg de waaye tam wali de troisième mandat bi moom xaaf naan kon dialogue bi day am mane ci Vox Populi Khalifa Ababacar Sall naan man daal la ma gis mooy doon candidat ci nu mu mën a amee nag baax na te dialogue bi moom dañ caa war a wuy ji ndax fi mu ne réew mi lëj na lëj goo xam ne toog pencoo waxtaane ko daal moo koy daal di saafara Ousmane Sonko ci Vox Populi naan amnistie ànduma ci tey ànduma ci ëllëg nanu soppi façon bi nga xam ne noonu la ñuy wotee waaye amnistie sërëxal te ñeneen ànduma ma ci moom Ousmane Sonko naan campagne désobéissance la woote ci réew ndax yoon lam ñu bëgg a teg netti na lool te duñu ko nangu critique yéen kaay naan en tout cas moom ma ngay tontu Ousmane Sonko Mame Mbaye nga naan Ousmane daf may fay ci nii mbaa ci naa te ko yoon daan daf cay tëdd ci nii mbaa ci naa lu ko may yoon ci boppam mooy dal ci kawam Mame naan leen man la ma bëgg laaj mooy ban Ousmane Sonko lañ war a gëm ndax yenn saa ay waxam ci boppam moom Sonko daf di réer tribune yéen kaay daal di jox kàddu Souleymane keroog xam nga luñ ko woo ci mu dem wuy ji yoon daal di daal ci kaw gudomp dëbu waaye tam ci génération Pape Diémé te naan leen réew mi fi mu nekk ko nar a caxat cee ñoo ngi sa kaw l'évidence yéene kaay naan maan am dem jàmm la woote moom ceex Issa Sall maire bu Mbour di woote nag ñu daal di bootu bu baax ci liggéeyu président Macky Sall gannaaw ba mu dalalee mouvement agir ak président Macky Sall ngir nag daal di suqali diiwaanu Mbour moom Cheikh Issa Sall am dem naan Sall ngaari lam tooro li mu woote nañ ci wuy di dialogue bi waaye tam nañu ubbi suñuy gët xool ay réalisation Aliou Sall ndax ki nga xam ne jox na la ndékki bu la diggee añ mbaa doo ko gëm Cheikh Issa Sall naan engagement bu président Macky Sall waaye tam ouverture bu président Macky Sall day jar naa lu ndax Sénégal fi mu ne ponk bi mu teg ci wàllu jëm kanam neexul ba neexul waaye Sall desu ko ci génnee tribune yéen kaay mel ni ku naan man coow laa nga ca pëndub teen ba ndax xaadim ja ci boppam def na rentrée politique am ak mouvement ñëpp di ensemble yéen kaay bi naan man coow la mooy ci peegug PM Amadou Ba la ko daal di defee ngir nag ndam ci présidentiel ba ndamu kan askan loo ci man ci dégg réew mi yëngu na vox populi naan maan lu mu yëngu-yëngu bu leen fàtte ne Ousmane Sonko day nee na ñu ngi koy xoññoñal ci réew mi l'observateur naan maan fi mu ne day Ousmane Sonko yoon wi mu jaar daal dinay bëri poto poto daal di xajam lool ndax nag bu ne suba la atteem baak aji saar war naa taxaw nag ci kanamu greffier ba su ko defulee nag mënees na koo jël si tribune yéen a kaay naan maan bu ñii di gàmmu ñu leen ñey ras déem moom Cheikh Mamour Insa Diop ma nga dalal ci waxtu wax wàllu politique délégation bu zawiya ba ca Fès waaye tam ca Palestine ca këram ñu waxtaanee diine ak itam wàlluk tarixa ak loo xam ni mën na jëmale réew mi kanam ci wàlluk diine ko l'enquête quotidien naan maan guy tasum xibaar day daal dina yëngu daal di daanu ci réew mi yéen kaay bi naan maan maam les kamara daal dinay génn àdduna 24 heures yéen kaay naan maan tasum xibaar ci réewum Sénégal day moo ñàkk nga xam ne moo ko daan niital fa lëndëmoon daal dinay faatu fi mu ne ma nga tëdd ca yoof Mamadou Coor bu koreet naan maam lees camara ku ko ëppoon liberté ci wàllum tasum xibaar ci réew mi amul modèle la woon guy la woon ci tasum xibaar ci réew mi président Macky Sall ci yéen kaay bi naan sësti tuddee naa ko Mame Less Camara turbine yéene kaay naan man référence la woon di royukaay ci ndaw yi daal nay làqu moom Mame Less l'observateur naan man wopp gi ñu duppee Crimée Congo xam leen ni nag daal nay am ci réew mi am na ku ca faatu kaa bu njëkk ca l'hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay ab boucher la woon di jaaykatum ndawal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak nit yi nga xam ne jot naa daje ak ñoom ñëpp fi na ne ñu ngi leen tëggat yéene kaay bi naan man daane la ak man ma daal lay xamal soxna si nga xam ni dafa daal di wann lor baykat bi bëggoon def lu ñaaw